lula neex neex na ma te loo bëgg bëgg naa ko loo bañ bëggu ma man te loo bëgg bëgg naa ko. salaamaaleykum mbokki internet yi ñu ngi leen di nuyu di leen jaajëfal bu baax a baax a baax bienvenue dans euh, Yaay Buzz Yaay Buzz tey ñu am mbekte dalal ndaanaan si biir ndaanaan yi doomu Kaolack kooku mooy Ali Seck. Euh, mooy présenté boppam tey ah, mooy présenté boppam li ma mën a wax moom mooy à l'âge de ans intégré na li nga xam moom mooy le Dandale Ñool ànd ak ki nga xam moom mooy Baba Maal l'international euh, daal di wër àdduna dinañ ci waxtaan dañuy waxtaan également sur ces deux singles surtout nag bu mujj bi nga xam moo tax ñu invité ko moo tax muy def mooy def buzz ah mooy def buzz tàccu moom xam nañ ko ak ay loxo mais tàccu daal donc yooyu yëpp dañ see waxtaan incha allah Ali salaamaaleykum. maaleykum salaam di di kontaan ci yow di kontaan ci groupe bi nga xam ni xam nga raful moom raful média ah, loolu jeex na defe naa dara fayu dara fayu ko te ñun ay doomi jullit lañ donc loolu moom moo tax damaa ñëw ci kër gi rek daanu jërëjëf maa lay ziar bu baax maa ngi lay delloo ziar uh-huh. euh, di la jaajëfal bu baax a baax tey li ma lay njëkk laaj nee naa yaay présenté sa bopp uh-huh. tey su ma nee kan mooy Ali Seck loo may wax waaw mais Ali doomi Buur Géwël la rek ñun moom doomi Kaolack lañ uh-huh. yàlla def ñu juddoo Kaolack defe naa Kaolack tey boo nee Alaaji Maseer Mbaay mhm. wala Yemma Góor Seck wala Ali Guèye Seck kenn dootu leen présenté sax ci àdduna bi comme ni may présenté sama bopp pour mu yomb ci waa Dakar yi sama yaay ak Thiom Mbaay moo bokk ñoo bokk ndey ak baay Thiom Mbaay ku ne xam na ni moo nekk super étoile ci Youssou Ndour mhm. sam papa ak Baakan sekk ñoo bokk ndey ak baay di bada jëre mhm. defe naa moo njëkkoon a génne single boobu wooyoon jëre jëre yëngal réew mi dëggaloon ko Tyson déjà waaw koo koy rek nekk ci waar wi ndax depuis xale ba léegi depuis xale yi nga commencé daal. Euh, di fooy affaire yi waaw di café affaire yi xam nga ñun moom suñu famille yàlla dafa def ni ku juddu rek. Mhm. yàlla daf lay defal doo ci métier bi. Mhm. rawatina métier sabar. Mhm. ndax ñun avant tey way yeeg taasu yeeg yi yëpp ay tëggkati sabar la. sabar yi la waa dèjà tey boo déggee ma ne la yaayu sama yaayu papa Bada Seck mooy yaayu Bakar. Euh, astafurlah sama papaay papa. Bada Seck yëmu góor Seck. mooy papaay Bakar ak yaayu Coombaay. ak yaayu papa Ndiaye Coppet ñoo bokk nday ak baay. ak baay dèjà ñun donc ba nga xam ne c'est vous dans vous comme on dit. moo tax ñun moom dañoo jógee Kaolack <laughs> ñëw dal ci. dal ci waaw dal ci eh, eh, boo jógee Kaolack googu. Mhm. ban at nga ñëw fii wala ba ngay ñëw fii ñaata at nga amoon. waa bi may ñëw fii nax defe naa maa ngi am 9 ans. bi may ñëw nag sama papa daf ma indi pour jàng. dèjà boobu ku ne xam na ni sama papa ba nii may wax yow mooy Juel Baba Man. daf la doon rawale. waaw daf ma doon rawale pour ma ñëw <laughs> ma ñëw nga ni yàlla di def mbirum borom bi donc bi ma ñëwee nag. Mhm. ci laa nekk ci njàng bi mais soriwul nag. soriwul soriwul waaw njàng ngéwal. waaw du yàgg <laughs> du yàgg <laughs> seen classe ba rek. classe ba la ñuy yem foofu rek <laughs> fa la ñuy yem mais euh, lan moo la booleeg Maal naka nga yaa ngi naan si papa léegi mhm. nii ak Baaba Maal. Mhm. mën nga ñëw si loolu ak lan moo nan nga def ba intégré fi nga xam moom mooy. daan nañu waaw sama papa nag yàlla dafa def ni bi muy bada fekk ba léegi. Mhm. ci Baaba Maal la ko ñëpp xam. dëgg yàlla def ma ñëw bi ma jàngaloo comme ni ma la ko waxee rek jàngi bi soriwul mu xëcc ma. mun la Ali jàngal nga bañ waaw mu ne ma Ali jàngal ma bañ <laughs> dèjà maa ngi fàttaliku sama première tournée bi ma ànd ak Baaba Maal yéeg avion Mauritanie la boobu mi ngi nekk 99 99 boobu 13 ans yi sax matagul ndeysaan mais xam nga rek comme boo nekkee xale yàgg nekk Kaolack mhm. dèjà jour bi ma njëkkee yéeg avion ba wàcc mhm. man bu ma fayutoon jour boobu cachet sax bi ma ñibbisee doy na kontaan nga waaw dèjà ma wër dëkk bi yëpp waaw nii la yéeg naa avion gërëm <laughs> xam nga rek ndeysaan mais loolu yëpp sant yàlla te loolu yëpp grâce a sam papa hmm. ndeysaan jàppale ma ci parce que boobu métier bi sax mën nañ ko mais amuñu woon doole bee kattan gi daf doon ma doon poussé hmm. poussé le fait que ma ci doon dem di ci dem ndeysaan Baaba Maal tamit euh, à 2000 hmm. mu jël ma yóbbu ma Europe ndeysaan waaw déjà boobu defe naa tukki yombeewul nii quoi. yombeewul te foofu la ñuy ñëw si tukki boobu. Mhm. et nga nekk xale. Mhm. Pape Mal mhm. ma seen bu dul bokk yow sax laay wax. parce que tey yaa ñu yaa ñu soxal yaa ñu ñor. dinañ ñëw si Baba léegi. Euh, en tant que xale nga dem si seen yooyu. côtoyé artistes yi nga xam ni da nga doon dégg rek. am na sax xamoo leen sax. dëgg la euh, loolu lan lu mu def si yow. waaw loolu ko doon dundee. ndax maa ngi fàttaliku dafa amoon benn film bu génnoon fii Sénégal. Mhm. Tom Cruise moo ko joué woon benn acteur bu nekkoon. Tom Cruise Amérique. Mhm. Mhm. mais dajee naa ak moom Norvège. Norvège 2005 xaw ma 2004. et ba ñibbi si xaw ni moom laa daje. moom nga te moom moo ñu doon présenté jour boobu. ay Jennifer Lopez. yàlla def am na benn bi ñu joué concert bu mag bi ba pare. ci guddi gi hôtel bi muy joué sax maa ko doon jàppale di ko tooñ di ko jàppale batterie te du ma batteur. déjà li may wax nii waa Dande la ñoon ñi ngi may bi biñ ne moo gën a riche Amérique déjà ñooñu dañ doon bokk hôtel nii mu doonoon benn mbir moo xam ni mais comme xale laa mhm. man xaw ma woon fenn doo doo xam euh, fenn fenn capacité ak gëdd bi mhm. mais le fait que may màgg rek na ah ok déjà loolu yëpp ci loolu yëpp nañ ñëw taxaw si Baaba Maal tuuti mhm. ndax moom waral Mbaboor euh, tey jii Baaba Maal Sénégal yow fekk nga ko yaa ngi dund ak moom Sénégal bu nekkee Sénégal mais ànd nga moom si àdduna war nga kër Baaba si bitim réew ak Baaba Maal Sénégal waaw loolu nag man moom a njëkk a jaaxal <laughs> xam nga maxu Sénégal wax naa la ko fii léegi uh-huh. dèjà ay Baaba Maal tey booy ànd ak ñoom di voyager ak tey Baaba Maal fii ci biir réew mi non dafay mel ni nga naan yàlla ak yàlla gëdd bi bokkul gëdd bi bokkul ah. parce que man mën naa ne li ma ànd ak Baaba Maal voyagé yëpp hmm. Air France laay jël te Air France ku ne xam ne ni n'importe qui di ko yëg du ko jël man maa ngi rappelé ñoom Pape Bouba Diop ay ñoom El Hadj Diouf yi ba ñuy toj mm-hmm. heure bu ñuy dem tournée mm-hmm. ñooy bokk vol vol te Baaba Maal dafa bokkoon ci artistes nga xam ne premier classe moom non seulement ñun dañ doon voyagé moom duñ ko sax teg bët dèjà da ngay gis ni moom tey daraja boobu dëgg la nit ñi am na fuñ ko teg mais Baaba Maal daal boo génneek moom ak Baaba Maal fii bokkul eh, loolu na si biti tubaab bi na naka naka la ñuy dundee Baaba Maal eh, Baaba Maal du nit eh. Baaba Maal dèjà ñun dañ doon def ay festival yoo xam ne am na buñ mujjee def à 2003 Angleterre Londres mm-hmm. mais yenn salle yoo xam ne yow da yow da nga naan sax est ce que lii dëgg la dèjà ñu doon ay xale di ko di ko dund ak moom di ko mais nga gis mu doon nit ku mën spectacle nit koo xam ne tey bu dugg see tubaab yi moom dañ naan est-ce que kii réellement nit la donc da gis ni mais réew mi li fi nekk ma ko xam nga ko xam nga gars yi moom fi mu ne nii da ngay doxal rek mais Baaba Maal si tengado bi si si grand boubou bi si colin bi si si si babu si muy sol si macha allah du dulal africanité bi non mais du nit parce que ñun dañ doon ànd ak moom mhm. ñun mën naa ne bu ñu mësoon a ànd ak Baaba Maal tournée du ñu fay par par concert mhm. par semaine la ñuy fay ñun suñ per joom rek kase la woon. barki démb maa ngi ci waxtaan ak baakan mhm. ñun suñu per jom. kase mhm. woon kase la woon. tey mën naa ne Baaba Maal may na ma possibilité man bi may am jabari américaine bu may toppee Amérique di ñëw fii. Mhm. Amina. boobu aw ma sax dix huit ans. barki Seydina Muhammad li may wax ni addunaa ñu seetaan déjà nit ñi ma ma doon am ay gan yoo xam ni léeg dañ doon def ay tournée ak Baaba Maal li may wax nii maa ngi jàkkaarloo Dakar 92 com. waaw point com di ko wax point com. ak Dakar info point net. ñun tournée Europe da doon am sax. Mhm. man ma tardé ba ci lendemain bi soog a dem. ndax gan yi ma doon am ñuy ñëw ma leen di jàngal sabar xëy na léegi yooyu sax dafa wàññeeku. ndax aar bi maa ngi dégg barki démb yaa ngi invité sam benn xarit mu naan la mi ngi dox mais léegi affaire yi ni meloon. Hmm. ak léegi mën naa ne xaw na wute nax. dinañ si ñëw waaw si ñëw euh, tey jii. Euh, wax nga ba wax bitim réew. Mm-hmm. nekkoon nga Londres. Mm-hmm. Mm-hmm. bu baax eh, Londres eh, sa nekkin foofu. Uh-huh. du ñàkk nga doon côtoyer wala ay artistes doon la côtoyer. ay Sénégal wala ay africain eh, tey yan ñan nga liggéeyal bi nga nekkee Londres. waaw Londres man bi ma toogee nekk ci Baaba Maal ba 2004. man maa arrêté. yaa arrêté dama bëggaat pour mu leer. yow yaa arrêté man ànduma Baaba Maal daw. man maa toog ba sentirutuma musique bi ma ne xaaral ma dem Angleterre. Mhm. jéem a def ay bagages. ok noonu la demee pour muy leer ndax li may wax nii. Mhm. tey baakan sekk bi ma doon àndal di voyage. Mhm. dina ko seetaan. ndax ku ne xam ne sama diggante ak moom. ak ñeneen ak ñeneen. mais bi ma demee ndax 2004 nekk fa yàlla def ma dajee fa ak benn jigéen. mu tudd Fatima. ma doon sëy ak moom. ñu am fa doom sama doom a fa mhm. ni may waxee nii sama yaay mi ngi war a jóge Italie nii dem Londres mhm. déjà bi ma ñëwee foofu Salam Diallo moo njëkk a ñëw dëkk ak man Salam dëkk na sama kër ah, un mois ñu muy sama xarit bu baax mhm. bu loolu weesoo Waali ñëw Waali bi muy ñëw na football ko indi ah football moom moo ko indi woon bi yàlla defee mu ñëw pour football maa ngi fàttaliku premier jour bi ma nee Waali dafa am benn morceau bu may génn bu tudd kalake liki moo ma gënal kalake lekka ba daw indi godaas yi ko papam jëndaloon ak yëpp tegal ma ko ne ma dinaa la wax benn affaire ma ne ko ah mu ne boo fexee ba woyloo ma hmm. billaay boo ñibbi Sénégal doo wàcc Dakar ndax moment boobu xëy na am na pression bu ko papaam tegoon te papa ji boobu football la bëggoon football football bi rek la gisoon gisutoon leneen parce que coon boo waxee mu ne football bee gën a gaaw moo gën a gaaw mais gisa tey mbirum yàlla li yàlla def ci ci waa yàllaa ngi nii xam nga mm-hmm. donc loolu moom moo indi sama digganteeg kon bi nga ko waxee mu ñu way si dafa mm-hmm. dafa cest à daf si compte yàkkamti fa yàkkamti woon loo yàkkamti woon na mais dafa ragaloon dafa ragaloon waaw dafa ragaloon te li may wax ni waa Angleterre ñu ñuy seetaan xam nga waali maxu hmm. dama dama la koy waxaat fii tey dinga am opportunité bi tey ma wax la ko hmm. dund naa man loo xam ne dootu ko dund ak nit ah waaw jaar naa ak man foo xam ne dootu ko jaar ak nit tey waali bu ma doon defal ay milliards hmm. ay milliards mënumaa fay Ah, ndax tey ginnaaw yàlla ak yonent bi du papaam du Kiné Diouf mhm. du kenn mhm. waale tey bu demee ba ñaari nit di ko béggee ci Sénégal ah mhm. yàlla nax ci man la ko jaarale donc si way bi ndax waaw ci ci yaa ko njëkk gëm yaa ko njëkk wayloo moom mës ta xalaat loolu ci àdduna ko moo tax barki dem bi mu taxawee grand théâtre naan bi ma ñëw Angleterre gisuma fa yaay gisuma fa papa lépp yow la devant monde bi yëpp di ko seetaan moom it mu doon lu reconnaissant waaw ñàkk ki ñaan waale moom beneen affaire la ba pare na nekk phénomène. Hmm. lu leer laa la wax de nee naa la Wally Seck. Hmm. un an ba trente cinq ans. Hmm. ku fi way tey micro jamono ji non moo la dàq way moo la dàq way kooku Ali Seck moo ko wax xam na ko ndax moo ko njëkk eh, jël ñu def ak eh, single bi nga xam moom mooy Kalakaliki uh-huh. eh, di single bi nga xam moom nag defe naa ni tur bi sax daf la topp parce que da nga ni sax Wally Ali Seck et le Kalakaliki maanaam sax orchestre bi sax Kalakaliki nga ko nga ko tuddee ba nga koy génne single bi Euh, ba nga ko génnee. Euh, nu mu def ak ak ak lan nga si euh, est-ce que li nga si doon séntu amoon nga ko. waa am nañ ko xam nga lu tax. Hmm. ñun maxu aar def ñoo may lépp. Hmm. tey buñ demee tey ba tey boo ñëwoon tey fi ñu dëkk Kaolack. Hmm. di nga xam ne aar def ñoo defal lépp. tey bu ñu demee tey ba am na loo xam du koy bëgg a wax ba tey sama yaay nekku fi wala samay doom. te lépp rek ci aar bi may yëngu. moo tax tey ñu jóge fi dem. du du kenn. macha allah ma famille yëpp ak may seetaan mhm. boo ñëwee tey Escape Urbam fekk ma fi ma di nga ma mhm. naw lépp aar bi la yàlla dimbale ñu nax man comme ni ma ko waxee rek benn doom laa rek ci yaayam mhm. moo tax yàlla dimbale ma ba xooluma leneen du li ma gëm rek laa gëm kaleki liki bi moo ko defee waali gisoo waali bu may tagg bu naan fekk jërë ma ci mbéy di koy wax non da nga day yomb sa yaram day daw ndeysaan ndax ci la ci la ci la ci la commencé waaw ci la commencé donc nag euh, defe naa loolu tam lu am solo te wax nga ko euh, tey euh, anniversaire u mhm. Wally mhm. Wally mhm. ngeen def lu am solo euh, dañ koy seetaan ba pare ñu soogay dellu si waat sur le plateau Wally Seck Ali Seck foofu si Grand Théâtre loxo loxo di dëgg si tàcc yàlla nga gisee Serigne Touba yombal xiyaam sa loxo sa kaw sa loxo sa kaw ku bëgg sa yaay den di sa biige

la ilaha illallah Lamine Nar jox mu dëgg tey waali wayal sagal ma ne waa Sénégal kii nag moom mooy aadi kalaka ndiki ba ma ñëwee gisuma fa kenn xawma kenn moom moo ma taral Angleterre ak ñoom Moustapha Diabang Tamsir Diankees ñoom Medoune Ndiaye bés nag du dul borom lay tollool amuñu lu seet bii fii nga bokk fii nga bokk am nga fi cër dee fi ñëw nu la neexee ak noo ko yëgee secrétaire ma ngeen euh, la nga doon wax si ni mu lay tàggee mhm. euh, gis nga également grand théâtre mu feesee mhm. ak la mu wax si yow loolu mhm. tamit euh, Wally du invité n'importe kii kon su la invité am na lu tax waa parce moom léeg bu ma xoolee ba ci yàgg def naa ma doon n'importe kii xam nga mooy li ma wax rek maxu ku la jiitu ci néeg bu lëndëm rek moo lay wax waaw moo lay fa ngay toog de waaw te waali tamit xam na sama jaar-jaar mm-hmm. nee naa la waale bi ma defee bi ma nekkee ci Baaba Maal ba doyal ci musique bi ci laa dem Londres te moom ci la ma fa fekk te ci lay soog a dugg ci way sa comprendre que li ma la ça veut dire mi ngi mel ne yow ci métier bii nga ne nga dem ba ne nox doy na mm. ba dem toog beneen coin mm. beneen animateur fekk la fa tey mm-hmm. nga dugal ko ci ba yàlla defal ko ci ndam ah kooku na bu dee nit war naa xam ne kenn du ma ko sant ah, dèjà yooyu mm-hmm. moom moo tax tout le temps rek ma cër daf ma koy jox te it ma doon nit koo xam ni ah mi ngi defal ñëpp waaye li may defal yombul ku mu koy defal de te du teg bët ndeysaan ndaxte wu ma it ci moom dëgg waaw dèjà loolu tamit da cee am solo. waaw góor day yokk ngóor donc nag euh, loolu lu am solo la suñu invité yi si ay buzz moom mooy Ali Seck. Mhm. Euh, li ñuy seetaan moom mooy li nga xam mom moo tax ñu indi ko fi également mooy dàll yi maanaam moom la mu wax si dàll tàccu dàll moom mhm. en tout cas. Euh, à suivre nañu xool vidéo bi. Mhm. dellu soit sur le plateau bu ko defee ñu commenté. ay ma fi demoon bët Saalum dama jooy ma ànd ak Babacar ñu may ñu nar góor ci xarit wuy kala kala kaw moom a gën a kala Safra voilà si ngeen vidéo bi euh, ñoom Makhoudia voilà ñu ngi leen di nuyu danseurs yi ni ñu si ñëw mais Ali euh, tàccu daal euh, tey jii mu am ampleur bi nga xam tey jii gis nañu télévision yi di ko teg tey lu bind bi dëgg la wala bokk création bi dëgg la mën nga si ñëw waaw mën naa cee ñëw déjà damay nuyu Makhoudia mi nga wax léegi dama koy nuyu bu baax mm-hmm. ndax clip bi tey mënoon naa jël danseurs yi waal yi ndeysaan am naa mënoon naa jël ñeneen mais man maa ko ci sentir. sentir daanaka xam nga di nga woy benn morceau ba pare. sentir ni kii bu ko defee waaw dëgg te bi mu ko defee ñëpp d'accord. te yaa ngi wax léegi télé yi. Mhm. bari ñu ngi teg clip bi man yóbbu lu ma leen ko. macha allah waaw tàccu daal nag dafa doon benn phénomène bu xew Kaolack. Mhm. xam nga comme li ma lay wax rek ñun ay tëggkat yi sabar lañu. cey Saalum cey Saalum. cey Kaolack xorom sa la xorom sa la coon. <laughs> xorom sala coon de dama ko naan mais Saalum lu fa ne lan la lu xew lan moo tax si Saalum Saalum yi macha allah góor seen góor yi seen jigéen yi macha allah lan la lu xew non dama lay invité ah. yow dama lay invité maa ah. ko wax en direct dama lay invité nga ñëw Kaolack boo ñëwee di nga xam lan moo fa nekk ndax ñun mboose mooy suñu maam na xaar leen ñu waa Kaolack en tout cas non fala Ah, ferewu ma fa mais fa laa juddoo kon nag laal naa si Saalum saf naa si sab te danaa ñëw incha allah bari feeling danaa ñëw tàccu dàll <laughs> doon benn phénomène bu xaw kaw mhm. doon fecc bu bees mhm. dèjà bi ñu koy créé du sax man lu ma créé mhm. parce que tamit léeg day baax bu nit defee dara mënuma la wax kii moo ko def Kaolack wala kii mais damay gis ni programme boo dem rek gars yi dañ koy tëgg xale yi jigéen ñi di ko fecc ah, moo tax moo bi bi mu ne nii boo demee amul xew buy xew Kaolack te duñ ko teg te duñ ko teg yàlla def ma dëkk foofu. Mhm. ma ne pourquoi pas du ma def lii invité ci nag Alé Mboup. Alé Mboup moo nekkoon ci Bakar Jëre mu way ci lu rëy Alé Xaadim waaw Alé Xaadim ndaanaan lañ ko ci ba boo gisee samedi ñu ngi waajal lu rëy maag sama xarit sama doomi ndey Akka Akka booy Akka moom it di lu mag inchallah artiste yëpp mhm. parce que Kaolack mooy li ma la wax Lamine sa ndey bonde mii kaw Kaolack samedi fu ngeen di waajal samedi ah. yow dama lay invité rafet dama invité ravin dama lay invité ravin ci des nañ ko surprise rek mais yow dama lay invité ravin te boo ñëwee di nga xam ne lépp dëgg la dinaa ñëw mhm. di nuyu nax artiste Kaolack yëpp mhm. ku ci mel ni Papa Ndiaye Coppet mhm. ku ci mel ni Thiombaye sama nijaay ku ci mel ni saalum Seck Babacar Seck ñun ñëpp ay mbokk lañ. Mhm. te defe naa li ñuy def nii dafa métti mhm. yombul liggéey moo tax léeg boo toogee ci plateau yu mel nii dina baax nga fësal leen. dafa am solo te wàññiwul dara dafa am solo. Euh, tey jii euh, à part li nga xam moom mooy tàccu daal. Mhm. mi ngi dox macha allah. Euh, ndax da nga am projet album. ay tournée. wala bokk ay soirée. fan nga tollu si li nga xam moom mooy promotion bi. waaw gars yi fi mu ne nii ñi may déglu. ak ñi ma nekkal. maa ngi nuyu war sama papa Bakar Jëre bu baax parce que mënta toog benn fan ñëwul sama kër. mënta toog benn fanta woowu ma téléphone mënu ko sax maa ngi koy ziar bu baax li ñu war a def bari na mais comme Sénégal léegi dañoo toll foo xam ne boo waxee sax boo muytu dootul antu ah en tout cas ñu ngi ci daal waaw ñu ngi ci loolu la mën a wax di tàllal ñëpp loxo tanaan leen nañ ñu ñaanal te xam ne ñu ngi ci ñu ngi ci ñu ngi ci projet voyage yi mhm. ñu ngi ci moog nekkul nax ci projet album jamono ji mais ñu ngi ci projet voyage yi di ñaan yàlla yàlla suturaal ñu mhm. ndax jafewuñu jafewuñu donc dañ ciy sant yàlla bu baax a baax a baax di tàllal ñëpp loxo nag kilifa diine yi kilifa aada yëpp mhm. di leen wax ne nañu ñaanal rek waaw nañu ñaanal bu baax incha allah donc musique bi mhm. euh, musique sénégalaise en mhm. général surtout nag li ngeen di def yéen tamit muy taasu bi kebatu bi mbalaax bi euh, naka nga ko naka nga ko jëlee mi ngi dox doxul euh, doxul doxul <laughs> doxul parce que pourtant gars yi am na ñu xam ne naan mi ngi dox. Ah, waaw mais xam nga tey man bu ma toogee sama coin. yàlla di ma suturaal ma naan mi ngi dox. Ah. mais bokkul ak nag mi ngi dox. dans l'ensemble bokkul ak mi ngi dox mais doxul. Hmm. parce que xam nga musique bi tey mooy li ma lay wax léegi rek tey da lay leer leer yàlla ni fii amul ku fi jaayati. kaset hmm. bi na gën a siiw ci àdduna bi kenn jaayu ci. Hmm. et la preuve mooy il faut nga def buzz pour mën a jouer pour yenn affaires yu fees. yenn spectacle yu fees. am ay nit yu baax yoo xam ne ñoo lay jàppale ci yenn affaires yi dafa métti. dafa métti di jëm nañu waxante dëgg dafa métti. déjà dañuy ñaan yàlla rek yàlla defal nu sutura ba at mu bees mi ñuy dugg lépp yomb mais nag buñ ne mi ngi dox hmm. non musique bi moom wax dëgg yàlla doxul baakan loolu la may wax sax si def naan ma aali ah, musique bi nga xam ne dara amu ci te dëgg la dara amu ci sax moo ci am sax rek moom moo ci am te comme ñun dañ ko bëgg mu nekk suñ natt Mhm. yàlla ñu yàlla dooli sutura rek ñu ngi koy xaar baakaan baakaan baakaan mhm. baakaan ñu ngi koy xaar moom tam dinañ ko dalal fii eh, bu ko defee ñu xool euh, si lu mu nekk ak li xam moom lay waajal ak vraiment parce que ndaanaan la moom mi ngi sax si yeneen genre musical bi ma nekkee Walf également am na morceau yu ma indiloon yi nga xam yeneen affaire yi nga xam ne xamewuñu ko sax ak baakaan macha allah ndaanaan la xoolal weeru koor bi def na ay tournée internationale yoo xam ne am na ay artistes yu mag yu ñuy coow fii. Mhm. weeru koor fii la ñuy toog. dëgg mais tournée foo dégg tournée weeru koor rek jàppal ay tubaab ñoo la soxla. Hmm. te it métier bi muy def mu maîtriser ko mën ko lool xol bi rafet. moo tax moom ndam chéri Mounass Ndiaye ndam rek lay am. ndam rek lay am ñu def benn un petit rappel. kalakali kii. maa ngi su tuuti lan nga si waxoon. ey maa fi demoon bët saalum tama jooy jooy de riiti xoolal ma ànd ak di ma maxuma may ko naaru góor ci xarit wuy kalakele ka mooma gënal kalakili kii ni kalakili kii mooma gënal kalakele ka moom ma ko xoolal kaay may may la visa yóbbu la aéroport jox la passeport na la demal sama waa ji du xanaa da ngay naaw. ndeysaan. waaw dèjà loolu lañ ci waxoon kala kala kii kala kala kaa. Mhm. Euh, mën nga ñu tekkil tuuti parce que yaa ngi neen kala kala kii moom. kala kala kii mooy maxu mooy nit ku baax. nit ku baax kala kala kaa moom foo ko fekk. mooy safar lu nit def mu sànni ci xeer. yàlla ci moo tax chaque jour boo déggee wàllu def naan ma kaleke lii ki woo la moo ñu gënal kaleke le kaa la parce que temps foo gis xam nga bi ñu ngi koy def mhm. adduna bépp danañ ko seetaan mais am na ñoo xam ne tey maxu min ciy seen wala aali min ciy seen tax na mënuñu koo sax xool déjà adduna moo toll foofu mais ndax yàlla yàlla leeral xol yi. amiin yàlla ñun ñëpp ñu yéeneente jàmm. amiin yow it ngay ku baax. ñoo ko bokk ku bari di dignité. ñoo ko bokk lan ngay wax say say soppe loolu lañ tàggoo. waa soppe yi li ma leen di wax rek mooy maa ngi leen di gërëm bu baax. Mhm. di gërëm sama yaay Marème Mbaye. Mhm. di gërëm consul Khady sàll mhm. consul Khady sàll ndax ñu ngi waaj moom lu rëy Italie consul boo bëggee sax ma indi la maxu. dinañ ñëw kooku Macky Sall ko fa teg muy nit ku baax. di sama xarit di nuyu Alimatou si Mm-hmm. suñ lamba sidris bi nga xam ne Paris la nekk nee na moom mooy géwëlu Karim Wade ñoo ñëpp maa ngi waaj ak ñoom ay mbir yu rëy mm-hmm. di gërëm sama yaay bu baax mm-hmm. ndax comme ni ma la ko waxee benn doom la dèjà tey fii ma wax ak yow nii maxu bu mu ne léegi kar yaay damaa soxla léegi di millions balaa may génn fii mu ne ma am barke Seydina Muhammad mu nekk yaay ju baax moo tax dama koy tiitaroo dama koy béggee Xadi Aydara chéri Moodu damaa bëgg émission bii mm. doon émission boo xam ni ah gars yi jaar nañ fi ndaanaa ni jaar nañ fi de waaye bii non bii saf na sap mi ngi noonu donc maa ngi béggee ñëpp di wax fan fii nax nañu xaar ñu ngi ñëw Ravin yi ñuy wàcc kanam tamit mi ngi ñëw incha allah dinañ ko yëg jërëjëf Ali maa ngi lay bégge bu baax a baax Ali Seck mu doonoon nag sama invité yaay buzz eh, kalakaliki kalakalaka maa ngi ñun kalakaliki lañu lañu tànn ah mun parce que nag nañu war positif si li ñuy def merci beaucoup moom dafa positif moom mi nga xam mooy Omzo si réalisation bi ñu koy béggee ah, di kontaan si Ali di kontaan également si ñëpp ñi nga xam ñooy nekk Kaolack ñu ngi leen di béggee waa Saalum yëpp ak waa Siin ndax kenn mënu leen tàkkale jaajëfal ñëpp ñi nga xam ñu ngi doon bàyyi xel si le plan international maanaam si diaspora di béggee kontaan si yéen bu Ndiaye Buzz ak beneen daanaan incha allah. lu la neex neex na ma te loo bëgg bëgg naa ko loo bañ bëgg